ba ci lu mel ne tey jabalu Uhud aw doj montagne montagne woo xam ne woo xam ni xam ngeen ne montagne moo amatul xel waaye montagne bi junti bi Jóob moo daa wax bi mu jógee xaswatu xaswatu Tabuk bu mujj boobu nga xam ne moom la demoon nga ne moom la mujj génn di xeex doon dem ci Romain ya te xeex jot am parce que Tabuk lu bari te xew ndax xaswatu Tabuk booba bul fàtte ne xam am na xasoo bu ko jiitu woon bu ñuy wax muuta muuta romain yi booba ñoo doon xeexal jullit ñi fekk booba daa am buurub jullit boo xam ni buurub arab boo xam ni yónnente bi da ko bind leetar di ko wax mbirum lislaam ba waa ji demee ba yónni kenn ci saxaaba yi maa fàtte tur wi ñu ci téere yi ba waa ji demee buur booba fekk moom ab daa andoon ak nasaraan daa andoon ak romain yëmul ci weddi yónnente bi ak bañ koo nangu waaye kam yónni woon saxaab yi ba mu yónni woon da koo faat da koo takk faat ko yónnente bi nag ne moom faw ñu xeex ñoom loolu mooy muuta moo jiitoon romain itam di jàppale arab yooyu fekk arab yooyu ci seen biir lañ nekkoon ñoom ñoom lañ nekkaloon daal dajale ñaari téeméeri junni nit téeméeri junni yoo xam ne romain yi lañ ak téeméeri junni yoo xam ne ci jiiri arab yi yi dëkkoon ak ñoom ci lañ ko dajale muy ñaari téeméeri junni yónnente bi booba jullit ñëpp ëpp ñu ñetti junni booba boo fat fa makka ñëwagut muuta bañ ne ba maanaam maanaam ñetti ñetti junni nit lañ booba jullit ñi yónnente bi ne nañ nañ nañ ko yabal nañ maanaam yabal leen ca buur boobee rayoon saxaab yi boobu ngir ñu ngir ñu ñu ñu ñu ñu fay ñu fay ci lam defal ba mu demee nag gis ngeen ñetti junni nit yoo xam ni yónnente bi dana Zayd ibnu Haarisa na doon na doon na doon jëwriñ ji maanaam na jiite armée bépp nekk amir bi su fekkee na yor drapeau bi soo xamee ne daanu na nag na Jaafar ibnu Abdillah Jaafar ibnu Abdillah na yor drapeau bi su kooku daanoo itam na ko Abdullah ibnu Rawaha yor na ko yonti waxoon rek ñoo ñëpp faatu fi ne maa ñooñu ba leen yonti bi tuddee ne bu ko kii yoree ginnaaw ba na ko yor ci lañ xamal ne ñoom ci lañu war Abdullah ibnu Rawaha def na ci bayit yoo xam ne moom ba mu dégg yonti bi naan bu ko kii yoree ginnaaw ba bu ko kii yoree ci la xam ne moom ci lañu faatu ñoom ñëpp Abdullah ibnu Rawaha yonti bi daan ne ginnaawam ku yónent ku jullit ñi doyloo rek na jël drapeau bi daana Xaalid ibn Walid moo ko jël yónent fi mu nekk ci Madina lañ njëkkee gis ronkoñ yi tóor mooy leen fi mu ne nii de Zayd faatu na Jaafar faatu na Abdullah ibn Rawaha faatu na sayfun min sayfillahi mooy drapeau ba boobee la tudd sayfun min sayfillahi moom moom Xaalid ibn Walid maanaam ñetti junni nit jàmbaar la ñaari téeméeri junni loolu kenn mësu ko gis Xaalid ibn Walid day jàmbaar daa fexe ba xeex xeex bu métti ci bis bu njëkk bi bisub ñaareel bi bisub ñaareel bi mu def tactique boo xam ni tactique boo xam ni kenn mësu ko gis ndax daa daa am nu mu tëralee armée bi ba pare digal leen ñuy arrière ndànk-ndànk di arrière ndànk-ndànk gaa ñi jàpp ne lii ab tactique la tactique la boo xam ne ñemewuñ leen topp fi ne jàpp ne daa am fekk booba ñi njëkk ñi ñi démb ca démb sa ñi nekkoon ci ci njëlbeen gi nii da leen a soppi def leen ca ginnaaw ñu gis yeneen ni xar kanam ñu jàpp nañu ñeneen nit lañ Xaalid di arrière ñoom ba ba ba dellu ma dé moom ak loolu it njàmbaar la ndax ñetti junni nit maanaam ñaari téeméeri junni nit xam nga ne mënuñu ay yàmbaar la ñoom fukki fukki nit ak ñaar rek ñoo ci faat nga xam ne ca lañ jógee maan Romain yi ak arab yi leen jàppaloon nawaat yonente bi alayhi salaam yonente bi da caa jóge maanaam fi ne jullit ñi amaat beneen gis gis waaye li ma bëgg wax mooy romain yi ñoom daa am benn bés ñu ne dañuy ñëw fekk yonte bi fi mu ne ci Madina ñu song ko daa jeexal lislaam yëpp loolu la ñuy wax xaswa boobu la ñuy wax Tabuk yonte bi nag ne léegi au lieu que ñu leen bàyyi ñu ñëw di fekk fii nan dem songi leen loolu la ñu tuddee jëy suñu usra maanaam jamono yooyu daa jafe lool metti lool yonte bi ne nañu waajal armée bi kenn ku ne seet loo loo ci am maanaam xam nga Seydina Ousmane moom fekk na boobu mu am njëgg moo xam ni da koo defaroon mu toll ci ñaari téeméeri gileem ak nangam ak junni dinaar ak nangam xaalis bu bari doon ci wuti marchandise waaye ba mu déggee yonte bi wax loolu rek la jël loolee far ne ko dugal naa ko ci ci biir liggéey demaat itam ne suur mu indiwaat yeneen téeméer yeneen téeméeri gileem ba muy juróom-ñeenti téeméeri gileem ak nangam boole ko xaalis bu bari ay dinaar ak dërëm keroog yonte bi wax nañ da ko jal ci néegam la la la Ousmane indi daal ne daal maa darra Ousmane maa faala baala yoon Ousmane mii daal lu mu mën a tee def rek du ko wàññi dara ci kaw si waaye nit la koo xam ne yàlla dootu ko bind la ci bàq lu mu def rek baax na maanaam loolu addiye ji duun loolu mu indi moo moo moo moo ko Seydina Abubakar it ca la dem këram dajale alalam yëpp ñëw ñëw ñëw indi ko yonte bi alayhi salaatu salaam yonte bi ne ko loo loo fa bàyyi ca kër ga mu ne ko allahu wa rasuluhu yàlla ko yonte bi laa fa bàyyi ah la nekkoon ci kër gi yëpp mu dajale ko indi Seydina Omar moom xaaju xaaj ba lay ñëw moom sax moo nett li xadis boobu moo wax ne moom da jàppoon ne keroog daal Abubakar bi set maa ngi moom rawante nañ bi set bi ñëwee moo may moo may daan waaye tey maa koy ëppale lu mu yóbbu nee na moom lu mu demee alalam da ko xaaj ci digg bi ñëw indi ko yonte bi alayhi salaatu salaam les tuut Abubakar ñëw ne yonte bi laaj ko loo ko bàyyi mu ne ko allahu wa rasuluhu yàlla laa ko bàyyi ko yonente bi mu nga am na koo xam ne yoo xamul Xusayfa la wala kenn saxaaba yi koo xam ne ba mu ñëwee yonte bi dana ko demal nga nga indi sulus bi kese sulus bi la jeex nga rayal ko sa njaboot léegi xasoo Tabuk boobu nag ba yonte bi départ ba jub Madina ci la wax hadihi Tayba wala Taaba wa hada Uhud ba mu gisee Uhud rek dafa ne wa hada Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu dafa xam ne montagne yi ngeen di seen de moom la ñu wax Uhud aw montagne la waaye man dama bëgg man it ma bëgg ko moom montagne loolu li koy firndeel mooy benn bis yonente bi alayhi salaatu salaam mas naa yéeg ci kaw daj yi imaam Buxaari moo ko nettali ak Abu Dawud ak Nasaayi ak Ahmad yu bari benn bis dafa da cee da cee mas a yéeg moom yonente bi alayhi salaatu salaam ci kaw dajoo mu Uhud mook Abu Bakar ak Omar ak Ousmane yàlla dogal bañ toogee ba ca kaw ne tuut montagne yi ci moom yëngutu yonent bi këdd ko tànkam ne ko usbut oxu dalal xaa xamoo maa nekk ca kaw maag Abu Bakar wala boog man ak Abu Bakar waaw xanaa xamoo maa nekk ci yow maa nekk ca kaw man ak benn siddiq ak ñaari shahid ñoo nekk sa kaw siddiq mooy aboubacar ñaari shahid yi mooy omar ak ousmane kenn ku ne xam nga dañ laa rey dañ laa faat loolu la ko yonte bi wax taxawal maanaam ñu dekkee gis doj yi taxawaat ne dégg maanaam boroxoom yi nga xam ne ñooy gaa yu baax yi nga xam ne ñoom ñoom la yàlla may ñoom dañuy xam ne oxut bis booba mbégte moo ko jàpp rek mu yëngut mi ngoog moo tax nag loolu moom la sëñ bi wax foofu mi ngoog kon boo seetloo day gis ne yonte bi alei salatu salaam yëpp ko bëggoon bokk na ci leneen mooy li suñ bi wax xan yi nu gis in qad ata kalaamu dabbin qad ata fiha bi nafsin sabata xaniinu jisin qad ata fi mucjisatil mukrami xaniinu jisin mooy mooy dàtt garab boo xam ne yonte bi da ci la taxaw loolu it saxaax yëpp natt nañ ko bisu àjjuma la woon moo tax saxaab yëpp a ko fekk booba yonte bi alayhi salaatu salaam xam nga bu masaa di xutba day taxaw ci dàtt garab yi ñenn ñu ne dafa daal ci daa teg loxoom rek ñenn ñu ne ci daa taxaw ngir ñëpp gis ko ci dàttu garab boo xam ne dañ ko tegaloon ci biir jàkkee yonente bi alayhi salaatu salaam mu ci la taxaw seen soxna nag moo ñëw xamal ko ne ko kat gis naa ñuy defal ñuy defar loo xam ni buñ la ko defaralee moo gën mooy mooy li ñuy tudde mimbar yonente bi ànd ci wax ne nañ ko defar ñu defaral ko ko mooy mimbar boo xam ni ñetti ñetti kii la ñetti daraja la ñetti escalier la bañ ko defee ba àgg nag aju ajuma ca ci jëkk yonte bi daa ñëw génn néegam xam ngeen ne yonte bi jàkka ji néegam da ca taq nga xam ne buntu néegam ci jàkka ji la ubbi ko alayhi salaatu wasalaam yonte bi sax néeg néegam yi bu ñu ko waxee mooy néeg yi nga xam ne ci la soxna yi dëkkoon néeg bi nga xam ne nag mooy néeg soxna Aïsa moo gënoon a jege ak mimbar bi nga xam ne fi ne nii foofu lañ ko denc alayhi salaatu wasalaam yeneen néegi soxna yi taq ci jàkka ji nekk nii yonte bi nag bis boobu mu génne ci néeg bi rek dem wuti mimbar ba alayhi salaatu wasalaam romb dàttu garab bi bi mu taxawee ci mimbar bi tàmbali nar a xutba ñu jekkee gi dégg yuuxu yu méttee méttee méttee méttee maanaam gaa yi xool xamuñu lu war a yuuxu ñu ndekete garab gi mooy yuuxu dàttu garab gi am na ñoo xam dañ ko dañ ko nuroo lekk maanaam jigéen ji ñàkk borom kër garab xani na sekk la am na ñoo xam ne dañoo wax ne maanaam yuuxu gi dafa dafa amee kaddu gu mel ne gideem gu yuuxu noonu muy yuuxu noonu la yuuxu yuuxu ñëpp dégg ko muy riir ñu ne ah waaye garab gi yuuxu yonte bi wàcc mimbar ba ñëw teg ko loxo mel na kuy wax ak moom ñëpp seen yonte bi seen bitee wax ak moom ba maanaam yonte bi ba ba mu agsee rek ba teg ko loxo ci lañ gis garab gi noppi yonte bi nekk fa wax ak moom la mu wax ak moom mooy da ko wax ne ko bu la neexee ma jëmbat la fii nga nekkaat tàndarma bu la neexee ma yóbbu la nga bokk ci garab yi àjjana ya ne mu tànn de bokk ci garab ya nga xam ne ñooy nekk ci kër yonente bi ci àjjana alayhi salaatu wasalaam yonente bi digle nañ ko suul ñu gas ko suul ko maanaam loolu la suñu wax xaniinu gis niin mooy ba ci dattu garab yi maanaam maanaam néeg naa teqalikoog moom alayhi salaatu wasalaam maanaam bu bu bu bu seen du yonente bi du ko wàcc mukk man bu seen day day day day day topp yonte bi ba ci li ñuy wax xajatul wadaa cheikh yi ñu ko cheikhaah yëpp maase nañ ci ne keroog yonte bi bi mu rendi xam nga yonte bi xajatul wadaa at gi mujj daa rendi lu tolloog li mu am ci at la la rendi keroog ci ay gileem boobu mi ngi toll ci juróom-ñaari fukki gileem ak nangam wax nañ ne rendiwut lépp nag daa am yenn yi la rendi yenn Seydina Ali la jox mu rendi ko waaye keroog ñëpp dañoo maase yonte bi mu yoree paaka bi giréem gu ne di di indi baatam maanaam di ko jege si bëgg bëgg mu mu teel laa ren bu rendee ba noppi maanaam nga gis giréem giréem giréem giréem gu ne maanaam di fekku bëgg mu mu rendi la boobu alayhi salaatu wasalaam maanaam loolu ci nga yëge ne mbooleem man yonte bi mbindeef yi ñoo am ñoo am ñenn ñoo xam dañuy dañuy sikk ci mbiram waaye dafa maanaam dafa teew ci awaalim yëpp adda yëpp ko nangul gis nga malaayka yi itam noonu lañ demee woon ci moom jinne itam gis nga noonu lañ demee ci moom ñoom ñëpp dañoo màcc gëm bañ ko déggee moo tax ñëpp nangul ko loolu suñ bi wax malaay mbiru malaayka loolu suñ bi wax ne kaana yasuuru manzila ridwaanu kay yu bajji la minha tuyurul mursala ala dawi taazumi maanaam loolu suñ baa ngi jiblu la amoon njëkk yonte bi yonte bi ñëw muy amul fiil loolu nepp li woon nañ ko ci njëlbeenu jataay yi te loolu irhasar lay tudd xam ngeen ne yonente bi li liy dikk ci moom ci xar baax ñetti xaaj yi yenn yi da ko jiitu yenn yi ci jamonoom la ñëw yenn yi ginnaawam la dikk yëpp nag lay dugg ci xar baax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ya jiitu yonente bi ay irhasar lañ koy tuddee kenn du ko tuddee mu'jisa yi ñëw ci jamono yonente bi mu'jisa lañ koy tuddee mu'jisaat lañ koy tuddee yi ñëw nag ginnaawam ay karamaat lañ koy tuddee waaye lépp nag ci yonente bi lay baw lay baw ginnaaw yonente bi mbooleem waaju baax ju def xar baax loolu day tegta la ne waa ji maanaam kat diine ji mu topp ba yàlla may ko ci feeñale moom ci feeñale ci moom xar baax bi diine jooju mooy dëgg loolu la sëñ bi wax wal awliyaaw adillatu tasxiixi maanaam awliyaa yi dañuy firndeel ne diine ji dëgg la diine joo xam ne amul waliyu nga xam ne maanaam bu lu tu njabar kenn mënu ca def lenn lu duñ xam loolu diine du dëgg maanaam diine joo xam ne ilayam diine mosoo dégg benn wël yu nga xam ne moom si nit yëpp mooy jënd nit ñi ci xaalis ak ak ak alali adduna bi xam loolu du diine ji nga xam diine joo xam ne dafa bari bi ay awliya yoo xam ne kenn ku ci ne boo jëlee xarbaax yi mu def ku mel tey ki ñuy wax Yuusuf Nabahan li téere mi def tudde ko jaami jaami awliya awliya yi karamatul awliya lam ci nekk ci ci ay karamat kenn xam lu mu toll te loolu lépp day firndeel ne diine ji nga xam ne ci lañ ne ñoom awliyaaw yooyu mooy dëgg moo tax karamaat yi yëpp day dellu itam ci xar baax yonente bi te lay te lay tënkuwaat moo tax nga gis sëñ bi jom di wax ne kulli yëti mu'jizatun ta axarat maanaam mboolem li li xew ci sëñ Tuubaa ci ay xar baax yëpp day dellu di mu'jiza ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam